coono démb xaw a jàpp tuuti xëj na mu ngi si yoon bi su ko defee rek ñu daal di nuyu niñ ko aada def suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi ak suñu xarit yi suñu soppe yi waaye nag jël nuyoo kilifa diine comme macha allah taala gox bu nekk am nañ fa waajur am nañ fa sëriñ mënuñu tudd ñëpp ndax kon temps bi day jeex dañuy jël lépp rek jox ko seen doom seen jarbaat Cheikh Mamour Essa Diop sama doom jooju nga xam ne macha allahu taala seetaanul sama dara ma koy ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gi yaram moom ak ay njabootam ñoom Baye eh, Mbaye ñoom sëñ Lamine Diop ak yaayam yu tedd yooyu Adja Sagar ak Adja Khadi ak mbooleem Cheikh Aïda njaboot gi yëpp Cheikh Mamour nga joxal ma ñaan gi séddale ko ne xam naa ne yow jóob boo séddalee kenn kenn kenn du manqué. su ko defee rek euh, ñu nuyu aussi sunu njabootu biir ak biti di nuyu ñi nga xam ne itam seen yaram dañu sutante comme man xam nga comme man ci ñoom laa bokk ba léegi <laughs> maa ngi tane bu baax nag mais koor gi moom damay xaw a kii noonu pour Oustaz Mor ne ma mun naa faman kaani min ko mari dat moo su ma ñëwee rek damay xaw a sedd sedd lu noonu comme ça Oustaz Mor ne ma ah faman kaani min ko mari dan daal mun nga mun nga mun nga xaarandi su ko defee ma leen di nuyu di leen ziyaar ndax nee nañu euh, li mu saf ku ko macc ko xam waaw boo ci jaaree rek ci ngay xam lu nekk wante nag alhamdulilahi rabbil alamina Oustaz ñaanu nit ñi ak seen yërmande ak médecin yi nga xam ne itam ñoo lay toppatoo topp la su subaa hôpital principal moom duma leen fàtte mukk si àdduna waa Sowier ak waa Kinésie bi nga xam ne actuellement bu ma jógee fii sax fa jëm ni su ko defee oustaz itam prison yi xam nga suñu njaboot ya fa nekk koor gi si jotee dañuy xaw a wéet ñuy wax njaboot yi yëpp ñi nga xam ne am nañ fa ay nit ñu leen di jàppale ci ndogu yi ak ñi nga xam ne ñu ngi doon defar ay ndogu di fa yóbbu ak di dimbali susu rawatina parti bi jigéen ñi nekk bu buñ leen fàtte ndax euh, nattu la boo xam ne bu neexoon yàlla borom bi subhanahu tey ñu bokk itam ñi nga xam ne ñoo fa nekk kon nag suñu yàlla baaxee ba ñoom ñu ñu ñu ñu nekk ak ñun ñu nekk fa ñun ñu nekk fii si biti war nañ leen a bàyyi xel di leen wax ne ñu ngi ak ñoom ndax ndeysaan oustaz Mor dañuy bëgg kii bi dangay boo demee dañ lay laaj laaj Assane ana oustaz Mor diw Assane ana diw ana saan su ko defee oustaz ñu ñaanal itam suñu ñi feebar suñu magu daara alaaji Moustapha Gueye ñu ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla delloo sagom delloo si ko ak jàmm si réew mi euh, wax dëgg yàlla nit la koo xam ne ñun duñ ko mën a fàtte si maydaan bi ndax wax dëgg yàlla dañoo bay lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri su ko defee rek ñu nuyu mbooleem rek koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog ñun ñu nuyu la ndax suñu buggee lim rek day euh, sooxeel ci ci temps bi nga xam ne bëriwul te moom la ñu am kon damay def rek jox suñu faqihu daar macha allah taala ki nga xam ne moom defe naa ne ñëpp ko bëgg ndax euh, léppam njëriñ kese la ku weddi démb fatiha beeg euh, bismillahi rahmaani rahim la beeg alhamdulilahi bi moom démb tey defe naa lu ma si jot si ay ojo ku nekk su ma yónnee woon li la waaj waxoon ku nekk su ma yónnee woon di euros rek xam naa ne euh, fi la ñuy doxee rek daal di daal di daal di mën a jël congé dem umra waaye nag xam naa ne xëcc bu dabbul dina egsi kon Oustaz Mor dama lay jox kàddu gi rek nga nuyoo defaale yi tamit euh, benn muraja li darsil maadi pour ñu préparer darsul xaadir xam naa laasana waroon na koo bind démb soratul fatiha la woon tey dañoo bëgg a dugg nag tuuti rek euh, ñamal nit ñi ci ayatul kursi yi ak njëriñam kon xam naa laasana lom dañaa gis dinañu bindal loolu ci écran bi moom dem gisee incha allahu taala kon oustaz fal euh, exil ak jàmm ci wareefu ramadan alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi ihsaanin ila yawmi ddin Seyda di di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaye di wax suñu téléspectateurs yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Seyda di nuyu nag adduna bi comme ni nga xam ne noonu nga leen nuyoo mhm. ndax euh, yàlla dafa dogal euh, nun bu nu génnee ñu bëri dañ ñuy woo euh, ku nekk di yóbbanti nuyoo mhm. ak ziyaara ak ñaan mhm. am na ñoo xamante ni bii dañ naan ma billaahi alayka waxal ma ko wallaay ndeysaan macha allah. kon nag euh, ku mel ni Fatou Gaye nekk fële ci yaraax ci sunu jumaa ji nga xam ne ci mook soxna Sukay Diouf. ñoom ak ñañ ko bokkal. ñooy nekk di yëngu. ca jumaa ji di defar ak di organiser ak wallaay ndeysaan ca soppe la Fatou Gueye ca soppe la mu ngi mu ngi nuyoo ñoom madame Diouf ñu ngi yóbbante nuyoo benn xale bu jigéen bu ñuy wax soxna bint Diallo ndeysaan ndeysaan euh, ah kooku tur turandoo Binta Diallo bu taaw la ndeysaan xale bu yiw bu teey macha allah ndeysaan muy muy yóbbanti nuyoo ak ziyaar ak fonkel ak soxna maama nekk fële ca Italie ah maama moom ñaanam yi dafa neex ba mu ëpp moom Euh, te ay junni junni lañu. Uh-huh. yoo xamante ni bi kenn ku ci nekk. Euh, mu ngi lay ñaanal yàlla may la ay at yu bare bare euh, kon nag mënuma lim ñi ma yóbbante ñëpp. waaye ma wax rek ni. Mm-hmm. ñëpp ñu ngi lay nuyu tabaarakallaahu di la ñaanal yàlla. Uh-huh. di nuyu nag bu baax tey ziyaara mm-hmm. mbooleem ñi nga xam ne ay doomi daara lañu. Mm-hmm. di bokk ak nun daara ji di ko rafetlu. ndax waxtu wi bu jotee Seyda. am na ñu nga xamante ni bi mën naa wax ne ñooñu ëpp xam-xam fuuf ñooñu dàq jàng fuuf ah. gën ñu ëpp euh, moyen fuuf waaye dañuy toog naan eskay euh, loolu nag euh, jukkoy sang la uh-huh. alaaji bu saaxu yàlla na yàlla yokk leeram da doon wax mu ni uh-huh. sang piir uh-huh. mooy toog ci fauteuil yu raweel di déglu ku mu raw. ba noppi naan est-ce que. wallaay ndeysaan di ko rafetlu. di la woo aussi di encourager. kon nag vraiment baax la rek ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal. Euh, di di rafetlu seen liggéey yal na yàlla fay leen yiw. kon nag alhamdulilah Seyda. Uh-huh. ah ba tamit. Uh-huh. daara ji euh, am na ñu ñu ko rafetlu. Uh-huh. ndax euh, ñu bëri nee nañu doon nañu jàng faatiha ci julli mhm. mais xamuñu woon ni ndekete loolu lu mel noonu mu ngi ci biir mhm. faatiha mhm. te euh, loolu nag dafay nekk lu am solo gis nga nit looy wax te fekk xam nga ko day fekk ne boo ko dee wax ci jaamu yàlla da ciy gën a am beneen shawqa te loolu rek mooy mooy li ci gën am solo loolu mooy li tax ñu wax ko uh-huh. kon daal ku taxawati di julli uh-huh. soo taxawatee wala nga toog di jàng alquran wala nga yor sa téere wala ngay dégg koy jàng fatiha xam nga ne loolu yëpp ak yeneen yu nu waxul les waxul les waxul wallaay les uh-huh. parce que fatiha euh, du jeex mënul jeex Euh, Serigne Cheikh dafa ne ba un tasiru te naqulan wa bi sayriha ah. wala dat xutuuta musayidil bunyaani nee na li am ci àdduna bi yëpp ci nuqtatu fatiha la tàmbali wallaahi wallaahi nuqtatu baay bi nekk ci laq bi wallaahi mooy mooy kii bi kon ci ngay gis lépp ah. moo tax euh, boo ko dee jàng da am looy yëg nag ah. da am looy yëg kon nu gën ci bàyyi xel ñi nga xam ne mënuñu ko liir liir bu rafet nañu góor góor lu ab am oustaz wala am benn sëriñ daara bu dend ak yow nga ne ko déglu ma ma liir faatiha mu déglu la nga liir ko liir bu set su ko defee loolu am nga li li nga bëgg xam nga yaa ngi fàttaliku sa mbokk ma Imam Ndiaye. te nekkoon RTS te dëkk Thiaré waaw waaw ndeysaan yàlla na ko yàlla doon yërmande wooma ndeysaan. ndeysaan uh-huh. xam nga Imam Ndiaye boobu dafa doon jàngal ay jigéen. Uh-huh. mais da daan def lu nga xam méthode boo xam ci moom laa ko mës sa gis. Uh-huh. mooy day day wax jigéen ñi da ngay julli julli biral ma déglu li ngay wax ndax jaar na yoon wala jaar na yoon macha allah xoolal boobu métul jàng xoolal su ko defee jigéen bi taxaw mm-hmm. allahu akbar tari fatiha mm-hmm. tari saaram mm-hmm. sëgg mu déglu ko lan lay wax bu toogee mu déglu ko lan lay wax bu sujjootee mu déglu déglu taay bi déglu salatu ala nabi bi déglu ñaan yi topp ci salatu ala nabi bi ba pare sëlmal mu xool daal waaw nii baax na bu amee lakkin mu ne ko koy jubbanti. wallaay ndeysaan su ko defee ñu jubbantante seen biir. xam nga nit fu mu juumee day day day des. day des dootul dem donc hmm. loolu. nañ euh, nañ ci dimbalante. Euh, wax naa ko barki Demba Mani euh, mbokk mala ca RFM. Hmm. muy Moustapha Ndiaye. Hmm. dafa dafa teg benn neexal. mu ne nañ ko nañ ko indil. Euh, faratay njàpp ñaata la mais ku ko indi da nga koy wax ñaata la mais nga waxal ko ci ñett ma di ko déglu keroog 16 heures ba 17 heures maanaam ah 17 heures ba 18 heures waaw mais ñi dugg ñépp na ma yàlla jéggal ma maak ñoom ñoo yem donc oh, loolu loolu kay. Euh, mu nekk lu nga xam ne kon daayira yi. ak daara yi. association yi mouvement yi tariqa yi nañu yokkaat yitte. ci ñi daw ñëw ci ñoom mm. pour que ñu jàngal leen seen diine mm. euh, parce que dafa am looy fooy toll nga jàpp ne li nga romb lépp ñëpp mën nañ ko mm. moo tax euh, suñu mbokk ma da doon wax naan moom ay primaire lay jàngal oustaz Iran te loolu mu doon wax boo dee déglu lu mel ni li ma la wax nii da ngay xam ne loolu dafa baax ci nit ñi nit ñi xam ko mm-hmm. Mm-hmm. kon nag mu yokk yitte suñu diine la mm-hmm. mënuñu xam lu ko euh, def jaamu yàlla te xamuñu ko kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax Seyda jërëjëf oustaz Mor li nga wax am na solo te xam nga li koy dëggal rek mooy macha allah taala léeg-léeg ñun ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci aj yeeg umra yi nga yóbbu nit ba foofu mu ne la jàngal ma fatiha wala jàngal ma jàpp xam nga loolu nga ne ko wax dëgg yàlla fii ñu jàkkaarloog rawdu bi ñu ne la jullil fatiha ak xul ay jàngal fatiha fatihatul kitab ak qul yaa ayyuhal kaafiruuna suratul kaafiruun nga ne ma waxal ma dégg ko ma ne la fii du duñ ko fi mën a jànge man loolu moo ma inspiré woon si aju màkk bi ñi ma doon uh, kii ba ma ba ma ne leen ku nekk tey soo demee na nga wax sa borom kër wala sa imaam wala ku mënti doon mu déglu la sa fatiha mhm. loolu tamit waaye nag faaqidu shay'i laa yu'tihi bu fekkee ne yow sa borom kër bi la wala jubbanti wala sa njaboot yëpp da nga leen a jël xuñ ci leen xañ leen yàlla xañ leen alquran yóbbu leen feneen ah lu mel noonu da ngay gis ci kër gi ne kenn kumba tanewul dégeen dégeen tanewul sàmba ah loolu tamit euh, jullit bu nekk war na ko moytu mhm. ndax nga am lu mat fukki bant wala ñaar fukki bant nga jël yëpp dénk leen mbiru àdduna nga xam ne yow ëllëg boo fi jógee li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan waladun saalihun yad'u lahu bu lay ñaanal bu la buggee ñaanal sax il faut que mu wut imam wala mu wut oustaz buy ñëw wàcceel ko kaamil hmm. wala mu wut oustaz wala imam buy def fidaaw parce que moom munu ko xamu te yow mi nga xam ne yaay masuliya bi waqifuhum ah la yàlla di wax ëllëg hmm. ndax lan yow yaay responsable. Mm-hmm, mm-hmm. yàlla ne qu anfusakum wa ahlikum naaran. Mm-hmm. yow bala ngaa qu an euh, bala kii njaboot gi sax nga aar sa bopp qu anfusakum. wa ahlikum naaran. rabbana aatihim di'fayni min al-'adhaab wa la'anhum la'nan kathiiran yàlla ci yàlla musal waaw su ko defee tey nag tey nag oustaz euh, kon Fatiha baa ngi noonu. Euh, te Fatiha moom macha allah taala mooy laytaayu lépp lépp lépp lu mu mënti doon. xam nga démb wax naa la euh, macha allah xatib bu mag boobu nekkoon màkkatal mukarrama nga xam ne bu musoon a xutba ñëpp yéemu mais keroog ba mu xutbaa xutba bi nga xam ne xutba même Sénégal jullit ñi jàngalekatu diine yi war nañu saa ñuy commencé ñu commencé ci la ñu commencé ci taawuz min ashaytan rajim def la def salaatu ala nabi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee benn benn xutba yi nga xam ne yaxal nañ ko wala ñu ñu ñu ñu ne nii la ko doon defee amul benn budul loolu la si doon jiital hmm. te ñun nag war nañu ñeneen war nañ koo roy waaye ñun ñi nga xam ne wax dëgg yàlla moom la ñu opté ñun moo lii mooy suñu métier hmm. ndax kenn forcé wul kenn hmm. ñii dañoo xool ne dañuy nekk médecin ñii xool ne dañuy nekk ay ingénieur ku nekk choisir li nga bëgg a nekk yow nga xool nga ne yow da nga bëgg a nekk jàngalekatu alquran lu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo la doy say waajur baaxee la ko mu nekk sax nag ci euh, euh, la ñëwoon démb ci siraatal am an'amta alayhim ndax yow mi tey li nga mën nii tey euh, dégg bés bu nekk nga gis ku la ne su ma delluwaatoon ndaw duma jàng lii ma jàng mais lii ngeen jàng laay jàng ndax bu bu bu jaxasoog yow rek ba gis yenn saa yu façon dundin bi ngay dund ak li nga xam ne yëpp këf na ay nitu àdduna te yow këfu la rek bu ko defee mu ne man daal eh, force bi ngeen am ak ak imaan bi su ma yëgoon li ngeen jàng laay jàng mm-hmm. parce que li leen ko may mooy innama yaxsha allahu min ibadihi l ulama mm-hmm. te loolu mu neex mu naqari loolu la yàlla euh, moo am mm-hmm. su ko defee tey mbokk téléspectateurs yi su su rawatina ñi nekk extérieur Yacouma Senghor dafa ma wax ne ma man keroog ñaan bi ñaan bi ngi Oustaz Mor wax moom daf ne ma man mokkal naa ko léegi nag mu tari ko ci audio yónnee ma ko. macha mu nga Angleterre. macha allah Gambien la mu ngi Angleterre. ah loolu dafa am solo. loolu dafa dafay won ne nit ki eh, eh, minal mahdi ilal lahdi ah nee naa eh, diine joo xam ne kii ñu ko jox biñ ko koy jox 40 ans la. 63 mhm. ans mu génn àdduna mu jàng ñaar fukki at ak ñett. Mhm. matale àdduna yëpp yow. même bu dee ne yow quatre vingt ans nga am sax soog a dal abata hmm. du gàcc dëgg waaw wala nga dal baabi bu am na ñu doon wax ni baabi bu moom <laughs> kii lu bàyyi nag eh, xuruful hijaaiya moom dafay dafay defar dafay defar eh, sa sa liirin nga tax nga mën a liir hmm. tey nag ñu indi lu gën a amati solo xam naa sax Fatiha moom lu ko gën a am solo amul mais tey tamit indi nañ ci solo yooyu li ñuy wax ayatul kursi. Hmm. oustaz foofu dama lay jox nga wax ma lan mooy ayatul kursi ndax damay dégg rek ayatul kursi ay ñu bëri nga dégg ñu ne jàng leen fatiha ayatul kursi suratul euh, alam nasara falaqi lixlaas falaqi naas lan mooy ayatul kursi waaw euh, kon xam naa ni ñu ñu war a waxtaan ci tey ñu war a waxtaan ci les bienfaits du verset du trône uh-huh. verset du trône la ñuy waxtaanee mooy ayatul kursi ay ngëneel yi ci nekk xam nga ayatul kursi sayda uh-huh. benn aaya la moom loo xamante ni ñu ko takkal garaatu garaatu son excellence macha allah moom ayatul kursi yi moom la yenent bi walla boroom xam-xam yi wax ne mooy aadamul aayaat yi moom aaya yëpp bi ñu taxawee moom la ñuy tuddee son excellence moom mooy ah, kilifa gi moom mooy kilifa gi ayatul kursi aaya yëpp mooy seen sang uh-huh. et pourtant am na aaya yu tedd benn aaya tedd diwul mais am na aaya yu tedd yoo xamante ni bii day tag sunum borom am na aaya inna rabbakum allahu alladi xalaqa samawati wal ard fi sittati ayam am na aaya allahu nuru samawati wal ard am na aaya muhammadun rasulullahi walladina maahu sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp ay aaya la mais ayatul kursi dafa bokk ci aaya yi nga xam ni walla mu moo jiitu ci aaya yi gën a tedd lan moo ko may loolu parce que dafa saf sàpp tawxid te xam nga tawxid yonent bi def na ci mission am vingt trois ans vingt trois ans mais treize ans yëpp tawxid la doon jàngale. tawxid boolewu ko dara. loolu moo tax euh, te damay jëlale njariñ yi mu am mais ki koy jàng war na xam lan lay jàng. lay wax wala très bien. xam nga am na. juróom-ñeenti phrase. moom ayatul kursi juróom-ñeenti phrase. soo ne Allahu laa ilaha illa wal hayyul qayyum. benn la. noonu nga koy toppalantee ba mu jeex. ba mu jeex. Euh, phrase boobu ma lim léegi. Allahu laa ilaha illa huwal hayyul akbar. xam nga Allah. mësuñu gis ko ko tudd. te kenn waru koo tudd. te kenn dootu ko tudd parce que mooy ismu daatu sunu borom sunu borom jëmmam ji boo amoon comme ni ñuy waxee Seyda Fatou Bintou di wax Mor Thiam di wax Oustaz Assane sunu borom boo ko dee boo bu fa continuer bi dafay am carte d'identité tur ba nekk ca carte d'identité mooy Allah Allah nag mag ñi dañ doon wax ne mooy ki nga gisul te mu nekk te mu présenté wu mooy ki ne meng te ni jon te ni loolu mooy allah moo tax soo koy woo ñu ne la jarul yuuxu jarul ngay wax di ko yuuxu mën la ah, allah jaru ko nee parce que mi ngi nii sa côté mi ngi sa côté ahuwa ah, am baidun fanu naa diihi comme comme sorewul mu ngi nii sa wet jarul yuuxu yàlla déedéet jaru ko uhuh. mais nag turam la bu nga xam ne allah turam la bu nga xam ne dafa man regle benn problème ci saa si ci day régler benn problème ci saa si mhm. mën naa la ci nettali ñaari ñaari ñaari xissa mhm. dafa am benn benn nit mhm. bu nga xam ne maalikum nu diinaar bi ma doon tuddi keroog moo dëkk ak benn tëgg moo dëkk ak benn tëgg mu ni tëgg bi dama seetlu ci yow sooy tëgg sa loxo ngay jàppe yi ngay tëgg te doo lakk sa loxo ngay jàppe li ngay tëgg te doo lakk ak bu tàng ni mu ni mu doye waar xam nga fii tëgg yi da gis dañuy yor ñiim wala tanaay wala loolu mu ne ko yow sa loxo laa gis ngay jàppe li ngay jàppe te doo lakk mhm. mu ne ko fii xissa de dafa am lu tax ma am lii mhm. mu ne ko lan moo tax mhm. mu ne ko dafa am benn jigéen bu toll woon ci situation ñëw ak ay njabootam tollu ci situation ñëw diis ma boppam ma ni ko duma la ko fajal lu dul nga jox ma sa bopp nee na ndaw si dem kaw dem suuf ma cramponné fi ma cramponné te ndaw si bëggul def lu naqari yàlla ndaw si dem na ba sës nag comme fa ma nu tura fii max sa tin muta jaani fi liis min voilà léegi mu daan ne mu daan ne d'accord naa uh-huh. ñu dugg ci néeg bi mu ne ko nekk ci condition nga tëj bunt yépp waaw kenn bañ ñoo gis waaw waa ji tëj bunt bi wàccee rideau tëj fenêtre wàccee rideau ndaw si ne ko am na benn bunt bu nga xam ne tëjuloo ko laa laa mu ne ko ban bunt mu ne ko baabullah allah boobu mu wax noonu waa ji mel ni siditam yi dafa dagg dafa dagg wallaay dina dagg na dagg mu daal di jooy mm-hmm. lay doon yëngu ci yaramam daal di dal mm-hmm. mu ne ndaw si sama koppar foora nga nële da nga jël lu la neex mais ci sartu nga ñaanal ma yàlla mu musal ma ci safara allahu te nga baal ma àq ndaw si ne allahumma xarrim alayhi naar fi dunya wal axira moom it xam nga xol bu sedd <laughs> ijaaba waaw loo ñaan ci saa fi sa xol fi nga mere. Ah. nga ñaan ñu tooñ la ak fi sa xol sedd ci nit nga ñaanal ko. donc foofu saa loolu du xaar. noo kuy yuut nag moo neexee jàngal nu ñuy tëfli. ah gis nga ko de ko de <laughs> xam yenn saa yi danga da ciy jaar. wallaay yenn saa yi da nga ciy jaar da nga ciy jaar léegi nag loolu noonu. Uh-huh. Euh, yàlla kii day uh-huh. yàlla na nga ko musal ci safara tey ak ëllëg. Uh-huh. waa ji nee na depuis ndaw si waxee loolu. ndaw si julliwul. woorul sarxe euh, naafilawul jàngul faate jàngul dara dafa ni allahumma harrim alayhi naar fi dunya wal axira musal ko ci safara rek yàlla yàlla yàlla waaw mu ne moo tax ci àdduna nii. Mm. safara lu mu tàng tàng tàng sama loxo laay dugal. allahu akbar. mais li li neutraliser jëmmu ndaw si jëmmu waa ji. Mm-hmm. bi si di itam yu jógee. baabullah bi waa ji wax. bi ndaw si wax. Mm-hmm. moo delloo loxo. waaw moo dal sa sang ba sa alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ko waa ji fekkee bi ko waa ji fekkee mu tëdd di forbët ida naamatil ay ida naamatil aynaani wal qalbu lam yanami day gëmm te fekk ne du nelaw moo tax da bu ko neexee day jóg rek kàbbar du yeesal njàpp allahu léegi nag mu tëdd nii mhm. waa ji yoot ba ñëw fekk ko tiim ko moom sallallahu alayhi wa sallam xàcc jaasi ji ba ci kaw ne tey laay am woy ci kaw suuf ndax tey laay tàqale waa ji boppam ak ah. baatam yóbbu ko ñu may tagg ba àdduna di tukki mu yëkkati loxoom ba ca kaw xàcc daan na ko Mohamed kan moo la mën a défendre ba duma la rey <laughs> waaw rek yonent bi ni ko allah yamna'uni allah allahu baatu allah ba mm-hmm. moo tiital waa ji ba jaasi ji wadd mm-hmm. donc kon allah sit situation yi mu mën a régler loolu dafay dafay lii moo tax allahu laa ilaha illa hu baatu nag gis nga de laa ilaha illa hu mm-hmm. amul benn buur boo ne xam ne boo xasee laa ilaha illa laa nag mm-hmm. dàq nga ñépp dëj fi kenn mm-hmm. dootul jarati nag ci sa dund. Mhm. ngay dem di wuti leneen wala ngay xooli keneen. surtout na nga teg ca ni alxayyul qayyum. Mhm. allahu akbar. alxayyu alqayyum. Mhm. suñu boroom dafay dund. te du faatu. xam nga tey ji koo dénk sa cummikaay. mën na absenté. wala mu nelaw wala mu nelaw. yàlla nag. moo tax laa taaxuzuhu. sinatun wala nawm wala nawm. laa ta'xuzuhu mm-hmm. du jot sunu boroom du jàpp sunu boroom du dal sunu boroom mm-hmm. sinatun gëmmeentu mm-hmm. xam nga léeg-léeg nga liggéey ba mu yàgg nga jeex jeex def nii ndeysaan Vincent <laughs> yal na ko yàlla yërëm <laughs> mu may enregistré may nelaw mu pare mu xaar ba pare mu ne ma mère déglu sa bopp ndeysaan yal na ko yàlla yërëm saan moo tax laa ta'xuzuhu sinatun wala nawm wala lu tax yàlla nelaw du ko jàpp gëmmentu du ko jàpp yàlla du nelaw du gëmmentu lu tax parce que bu nelawee lahu man bu nelawee lépp yàqu parce que li muy contrôler maa fi samawati wa lahu maa fi samawati mooy saytu la ci kaw asamaan mooy saytu li ci biir suuf ak li ci kaw suuf ak li ci diggante bi kuy saytu loolu nag tey jii nii sunu sunu sunu sunu réalisateur bii nii ñuy def émission nii bu bu nelawee téléspecta maanaam téléspectateurs yi. ñooy xam ni que ci régie ba am na lu mu sàggane. dëgg te moom benn benn benn benn table rek la la lay saytu. wallaahi ndeysaan. borom bi nag àdduna bi yëpp lay saytu. moo tax du nelaw du gëmmeentu du fàtte. du jaaxle. te dara diisu ko. te kenn yilifu ko te moo yilif ñëpp. laa taaxuzu sinatun wala nawm lahu maa fi samawati wa fi l ardi moo tax soo toogee nga ni duma jaamu yàlla la la mbokk ba waxoon eh, sama benn sama benn baay bu ñuy wax alaaji ma sekk Njaay yal na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbal aalamiin dafa nekkoon benn imaam ci benn jàkk am benn waay bu ñëw ne ko bàyyi ma sekk bàyyi naa julli <laughs> mu ne ko déet lu xew lu xew uh-huh. mu ne ko ah bàyyi naa julli mu ne ko bàyyi julli mu ne maa ngi julli chaque jour ma julli suba tisbaar takkusaan timis gee di ko jullee si jàkka ji te maa ngi am arrière lu loyer trois mois bàyyi naa julli <laughs> bàyyi ma sekk ni ko déedéet mu ne ko non comme man maa ngi jaamu rek te kiiwu ma non foog foog bàyyi julli waaw yenn saa yi de nag da xaw a kii ak mais ah. bàyyi ma sekk nee na ma ne ko déet te ngaa julli rek yàlla moom julli gi ngay julli ak li mu lay jox du dara bokkul julli gi da koo santaane mm-hmm. joxe gi da koo neex mm-hmm. nee na mu dem ñaari fan ñetti fan mu ñëw ne ko bàyyi ma sekk xam na ko ko mere de wax na dëgg na xam na ku ko <laughs> xam na ku ko mere léeg-léeg moom boo saalitee waaw gaaw na nag ci ku saalit waaw moo tax mm-hmm. loolu alaaji euh, maanaam Adja loolu dafa nekk lu nga xam ne nit ñi dañ ko war a dañu war a xam sunu boroom ni nga xam ne Euh, daf ko daf ko baaxe uh-huh. ñu war ko respecte ci wàllu googu uh-huh. kon uh-huh. moom moom asamaan moom moom suuf jaamu gi nga koy jaamu yokk ko wàññiwu ko jaamu gi nga koy jaamu yokk ko wàññiwu ko moo tax man dha alladi yashfau indahu illa bi iznihi allahu mu ngi wane nii bu ëllëgee yowmal qiyaam koo leen fi mën a gis ku mu doon surga la. waaw ñëpp dëgg la. waaw ku ngeen fi mën a gis ku ak mbo ndomb gu ngeen ko mën a takkal. surga la ëllëg bu ëllëgee du àddu te du maa ko jox ka sañ-sañ na ko waxal. maanaam réunion àllaaxira mhm. réunion àllaaxira mhm. yàlla mooy joxe parole yi ku mu joxul parole doo wax wallaahi ak loo naw naw waa ji fii mhm. loo ko bëgg-bëgg fii loo ko gëm-gëm fii loo ko topp fii bu ëllëgee su ko yàlla joxul kàddu du wax allahu ana kan mooy ki nga xam ne yashfau mooy ñëw taxaw ne yàlla bàyyil kii mu dugg àjjana kële bu mu dem safara indahu ci yàlla illa bi izni illa bi izni lu tax yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum foo tollu loo def sunu borom xam ne teew produit bi moo ko moo xam nga tey soo soo soo ñëwee ma taajal la lekk euh, keneen ñëw man mi ko togg préparé ko dugg ko taal ko yekk ko li ma ciy xam hmm. yow bi ma invité doo ko xam keneen ki ñëw yem ci du ko xam allahu moo tax mun yaalamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum ndax loolu moom rek moo mën a xabirul alim boobu nga hmm. xam ne hmm. dañ kump daj kumpa boobu deñ kumpa boobu moom rek boppam kese moo ko yore parce que tey ñii nekk fii régie bu dul appareil yi ñu boole tey ñu nekk si biti mënuñoo xam lan lañ fi nekkee appare euh, appareil yi kenn xamul lu ñu nekkee ci kaw fii mu nekk nii ñi nekk premier étage xamuñu ñun lu ñuy dund ñun tamit xamuñu lu ñuy dund waaye moom dañ na kumpa ci loolu moo tax ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum ndax lu tax wala yuhituuna oustaz wala yuhituuna waaw bi shay'in min ilmi xamuloo ni illa bi ma sha Allah gis nga aja doomu aadama lu sotti rek la xam wala yuxiituuna du ñu du ñu daj. du ñu peegu du ñu peeg. maanaam du ñu maîtriser. Mm-hmm. bi shay'in ci dara min ilmihi ci li yàlla dëccee ci xam-xam moom. illa bi ma shaa mu ko. waaw ku ko neex nag mu compal la. xam nga. Eh, waaye taxul nag wa maa utiitum min al ilmi. illa qalilan xam nga li tax ngay xam ne sunu boroom lu sotti rek lay xamle. Mm-hmm. da ngay gis jigéen mu am boroom kër. Mm-hmm. seq ak boroom këram. dem ci wanagam. wala ci saalam. jël test gorosesam am. testé ne am naa lu ma yëg. am naa lu ma yëg. mais xamagul lan la. déedéet. yàlla ko ci mosal tuuti ci xam-xamam. su demee tuuti. mu romb ñaari weer ñetti weer. mu dem ñu defal ko écho walla ñu defal ko leneen. ñu ne ko ah lii day grossesse la. mais ba léegi sexe bi leeragul. leeragul waaw wallaahi ndeysaan. inna allaha indahu ilmu saati. Mhm. wa yunazzilu alxaysa. Mhm. wa yaalamu ma fi larham. wa ma tadri nafsun maada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamu ay ardin tamu te loolu ba léegi mu ngi koy confirmer bés bu nekk nga dem defi échographe ñu photo ak yëpp ne la doom bi nangam nangam la xale bi juddu nekk leneen nga ne ah. échographe bi ñu ne xam naa naanoo woon ndox bu bëri wala dafa dafa dafa dafa xale bi dafa dawoon léeg nga dem ñu ne la xale bi dafa nëbbatu ah, dafa nëbbatu mënuñu xam sexe parce que saa yu jubee pour photocopie euh, photographie sexe bi mu képp tànkam moo tax gis nga yàlla moo tax euh, mbiru domaine yàlla daal dama ne bu si kenn di dugg rek lu rek lu sotti rek lay boo bëggee noppalu dafa am loo xam ne yaa ko moom mais am na loo xam ne moo ko moom moom li mu moom bàyyi ko moom xam nga moom li mu moom moom mooy buur bi mm-hmm. moom mooy kilifa gi yow xam nga lan nga yow yaay jaam bi rek allahu akbar jéem a la xam nii mu yore nii wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bi ma sha lu tax wasi'a kursiyyu samawati wal ard xam nga li ma aaya bi ma jàng léegi inna laa indahu ilmu saati waaw dafa am juróom yoo nga xam ni mhm. ñun dañ ciy sob di ci dugg te yàlla nee na moo ci xajal ku ko neex ku mu ci xajalul doo ci xaj mooy xam bés peñ ci kañ la. waaw kenn xamu ko allahu akbar xam yow sax parce que mag ñi dañu wax ni ku faatu sa bés peñ ci taxaw na. ah waaw loolu la moom loolu moom dëgg la oustaz ku dee nag sa àdduna tukki nag ku dee rek sa àdduna tukki na moo tax. Eh, inna laa indu ilmu saati. waa ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mata saa. Mhm. kañ la yowmal qiyaam yeneenti bi ni ko loo préparer maa da aadatta laha loo ko préparel comme xam nga ni day ñëw ba nga koy laaj yow loo préparé pour bis pour bis penc waaye waa ji am na fulla waaw uh-huh. mu ne ko mu ne ko ah, man day sopp la rek laa ko préparé jeex na tàkk sopp la dong laa ko préparé waaye nag euh, ak fële itam ca bëkk Jibril alayhi salaam seetse hmm. xam nga foofu itam laaj na ko mata saa hmm. mu ne ko mal mas'ulu anha bi a'lama min as-saa'il yaa ma ko gën a xam yow mi koy laaj. waaw parce que domaine la bu nga xam ne. Mhm. domaine réservé bu sunu boroom la. Mhm. yow li la war mooy nga gëm ni bés ci dana ñëw. gëm bi ngay gëm ni bés penc dana ñëw dalay musal ci pexe te nga tegu ci yoon dalay musal ci ni ah Seyda Fat Bint dérangé na ma de naa dem yóbbu ko ci xaan ci yeeg reen yi. Mhm. dala ciy musal. parce que da nga xam ne sunu borom dana ñëw. dalay musal ci yàccaaral yàccaaral nga ni naa lu jaamu yàlla ba ndax ëllëg bu sunu borom defee nangam ma am nangam da lay musal ci euh, iñaan da lay musal ci siis da lay musal ci ay pexe loolu mooy nga xam ni yow mal qiyaam dina ñëw moo tax yonent bi posé waa ji question ne ko loo ca préparé parce que loo def dana ñëw tax yàlla xam nga euh, dafa am benn aaya bu doy waar bu nekk ci suuratul xaq uh-huh. yawma idin tu'raduun laa taxfa minkum xaafiya allahu akbar allahu akbar yawma idin tu'radun laa taxfa minkum xaafiya gis nga ni ngay gisee foire yi di am exposé nga am sa produit yi dem yóbbu exposé keneen am produit am ñëw indi exposé keneen am produit am ñëw indi exposé yawmal qiyaam tamit noonu la yàlla di exposé ñëpp xanaa xanaa oustaz loolu mooy moo tax yenn saa yi jàng yow ma tub la sarairu bés boobu keroog la sutura yëpp di wuññeeku de mm-hmm. fama lahu min quwwatin wala nasir wala nasir yow ma tub la asarair xam nga yàlla allahu akbar yow ma tub la asarair ah. nit ki lépp loo mën a def bëccëg la yàlla dañ koy wax ci wolof sax ñun dañ naan ku dee weeru ah. waaw fa lay commencé ku dee weeru ndax ndax ndax fi nga dogee rek li ñuy ndeysaan dafa am sama benn yaay yal na ko yàlla yërëm fa mu tëdd may ñaan laa leen ndeysaan Adja Fat Fall jàngalekatu diine bu baax la woon mm. inspectrice la woon ci enseignement euh, arab ak boroom këram ba Serif Babali ay dara xam naa kooku ngay gën a miin mm. turam waaw euh, dafa ma wax ne ma mu ne ma man li may xalaat rek mooy bis bu ma génnee àdduna ba nit ñi jiitu ma ci sama armoire ba nit ñi dugg ci sama armoire ndeysaan muy tooñ nag boroom kër gi mu ne ma nag euh, bu boobaa da koy gis nag mooy jiitu sa armoire bi di lax-laxi te naan la bindal diw ci tàgge bi keroog rek la may bëgg di tooñ borom kër gi noonu ndeysaan ndax ay kal lañu woon mais yàlla dogal muy lu doy waar moo tax li ñuy wax ne euh, ali euh, albala mokkal bi mantiq bi mantiq biñ ma ko tàggee ne ma gaañu ne si guddi gi ma xëy suba teel ñëw di ko di ko di ko di dugg néegam ndax dama seqoon ak moom loolu mm. ma ñëw fekk borom këram ubbi armoil bi am na yuñ ko doon laaj. Mm. mu ngi téye batan armoil bi. Mm. naan bul fàttee sa nijaay diw ci tàgge bi. ni mm. dama daanu. waaw dama daanu yuuxu mel ni li woon parce que noonu la ma doon waxee ne ma kii xam nga kañ la may bëgg fekk ñoom ñaar ñuy tooñante mu ne bés boo bu ma deewee ba nga xam ne eh, ñëw ñëw nga fekk ko mu taxaw sa xam naa bu ma deewee li muy njëkk a def mooy li jënd sama armoire bi ndax sama armoire bi mayu ko moom mu egsi ji keroog ndeysaan ma ñëw fekk ko mu taxaw ci buntu téye buntu armoire bi ma gis ni ñuy lax-laxee bagaasam ma ne billaahi yow ma tub la sarairu ci bés bi nga génnee àdduna moo tax man suñ ma waxee ne ma armoire na am caabi ma ne jaru ko déedéet jaru ko nga Seyda armoire sax uh-huh. garaawatul léegi xamal moo garaaw léegi uh-huh. téléphone bi man de ku nekk mën naa ko abal fu nekk mën naa ko kii moo kii moo garaaw léegi parce que liñ ci am magasiné uh-huh. te yooyu am na ci yu nga xamante ni bii neexatul a gis te bu tey bu réeree ba noon for ko loolu mooy gravité bi waaw akbar moo tax yow ma tub la sarair fii lay commencé parce que am na ñoo xam ne tey seen àddunaa ngi yàqu ndax loolu xam nga loolu mooy rek wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bima saa lu tax wasia kursiyu samawati wal ard wala yauduhu xifduhuma xoolal foofu xam nga Seyda hmm. euh, tey jii suñu président de la république hmm. pour mu saytu réew mi ñu ko dénk hmm. dafay ut ay maire dafay ut ay député dafay créer parti am ay cellule dafay ut agent de renseignement dafay am ay ministère pour mu mën a saytu réew mi te réew mi day mujje mel ni ci moom caaya ju ñoor ju ñor go dog déggoo ma de oustaz caaya bu bu ñoor go dogee moom day kéemaane de maanaam contrôle contrôle ko du yomb non non tu ne peux ñoor go dagg yàlla bu mu rëcc ci biir <laughs> ndaw wagas ni ko. contrôler ko du yomb xam nga. du yomb moom. Euh, ñooñu. te est que Sénégal tolluwul foofu noonu fii ñu toll nii. mu ngi noonu de. lu doy waar lu doy waar léegi nag nga am yooyu yëpp ñu lay saytulee. Mhm. am nga ay préfet am nga ay gouverneur am nga ay lii kenn ku ci nekk nga dénk ko domaine te bis bu nekk boo dégloo rajo. Mhm. yëg ni diw mi ngi naan man sunu koñ kenn toppatoo. kenn toppatoo amuñu ndox. ñi ne amuñu courant ñi ne dund bi dafa cher ñi ne sama njaboot liggéeyul mais kële nag moom. sunu borom wasi'a kursiyu samaawaati wal ard pouvoir am ëpp na li ngeen ko li ngeen di gis. li ngeen koy kii waaye te tànk yi wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim wala yauduhu hifzuhuma jafewul yàlla pour mu saytu ko. Uh-huh. asamaan seeg li ci diggante bi. suuf seeg li ci diggante bi. jafewul yàlla pour mu saytu ko mais yow luñ la dénk pour nga saytu ko day nekk problème. foofu oustaz. xam nga am na benn xissa diggante yonent bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam bi nga xam ne seytaan doon na ko seet si xissa hmm. boobu bëgg naa nga indil ñu ko mooy bi bi nga xam ne non non doo ko fàtte xam naa ne doo ko fàtte dafay def saa yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màng mi dafa ñëw defe naa Abu Zarri yi la war a doon hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ne ko ku ma dajale ko xam nga moom li mu doon santaane du woon forcé kenn mu ne ah lii de màngu jullit yi la dañ ko war a séddale kan mooy ñuy saytu pour ñëw denc di ko garder ba ëllëg ñu mën a yeewu euh, ñu mun koo joxe magasin magasin bi daal kan mm-hmm. moo koy saytu mm-hmm. mu ne ko man mun naa koo saytu mais fi mu toog noonu rek foofu mu jékki-jékki dégg lu naan kur kur kur ndekete benn xarim yi benn sàcc moo mm-hmm. ñëw di sàcc mu mu jàpp ko mu daal di eh, jooy ni ko dimbali ma dama bari njaboot njaboot gu jigéen kese laa am mhm. aw ma dara xissa boobu laa lay wax eh, léegi eh, mu ne ko mu ne ko dimbali ma rek dimbali ma dootuma ko defati yo mu daal di mu mu ndeysaan xam xol bi rafet hmm. ak li mu ko ne jaboot laa bàyyiwu ma dara kër ga mu bàyyi ko mu dem mu xëy suba nag ci bi mu jullisee hmm. fajar yonent bi xool ko xoolu hmm. ana ki nga doon waxal démb ci guddi ci mbir ne ko maa faala asirukal baariha sa prisonnier bi lu mu def démb mu ne ko ah gis nga de wax na ma daal mu ne kii yonent bi ne ko day fen de xam nga yonent bi wa maa yantiqu ani l-hawa le lendemain mu defaat même chose mu jàppaat ko mu waxaat mu bàyyi ko le lendemain mu ñëwaat mu jàppaat ko mu saa yu ñëwee rek yonent bi ne ko naka sa prisonnier wu démb bi mu ne ko ñëwaat na mais daal kii lay na euh, ba ba ma bàyyi ko troisième jour bi nag mu ne ko tey moom yow ah, ah, ku ñàkk jom nga dama la fii téye bi mu ko téyee nag mu xam ne kii caaxaan mu ne ko kaay ma jàngal la loo xam ne boo ko xamee sa dara kenn dootu ci egsi te neexul borom bi subhaanahu wa taala mm. ci la ko joxe allahu laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum jox ko ayatul kursi bi mu ko joxee ayatul kursi yi nag mu ñëw la lendemain nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne ko moom day fenkat la waaye jox bi mu la jox ayatul kursi li mu la ci wax dëgg la ndax mooy li nga xam ne almun ji lépp loo ci ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala ci aar alal ak aar njaboot ak aar am am dina am su rawatina nag kooku nga nga jàppoon du nit mhm. mu ne ko mhm. lu doon mu ne ko iblis moom moom moo ñëwoon moo doon nëbbatu la laqaloo Euh, kii laqaloo euh, nit. nga defee ne nit nga amal affaire. fekk jinne nga amal affaire. gis nga Seyda. loolu mu wax noonu la ne ayatul kursi yi. te yonent bi wax ko ne ko li mu la moom mi la doon wax. dëgguwul. mais li mu la jox li mu la jox dëgg la waaw. ayatul kursi yi. ci li mu mën. ci lu baax. li mu mën ci lu baax. li mu mën ci aar. li mu mën ci protéger. ak li mu mën ñëw na sax ñu wax ni même bu fekkee mën nga guddi julli goo julli booy pare nga jàng ah, ayatul kursi bu fekkee moom moom kay moom lu mu di ci yonent lay teree dugg àjjana moom faatu booy julli goo julli boo sëlmalee boo nga jàng ayatul benn yoon rek rek sa digganteeg sa sa sa sa aljana mooy dee faatu moo ci des. loolu benn njëriñ la bu tax nit ki war a mën a dem. Mhm. jàng ayatul kursi mhm. surtout léegi nga xam ne. Mhm. Euh, Ramadan Moubarak yi ñuy envoyé wala juma Moubaraka yi dañ ciy bind dañ ciy def ay ayatul kursi wala yu mel noonu. nga xamante ne bi yomb na jàng pour nga mokkal ko déglu parce que nit ci dégg rek mën na mokkal. mën na mokkal nga ko. di ko di ko jàng incha allah loolu ba gannaaw. julli bu rek te itamit oustaz foofu ci mokkal bi. xam nga itam am na beneen saxaabi boo xam ne dafa fekkoon benn kër bu ràpp kër goo xam ne daanaka gent na mu dëkk fa nekkati këru jàmbur la mhm. xam nga loolu sax Sénégal mhm. léeg-léeg mu am fi mu am kër goo xam ne dañuy wax ne lii dafa am ku fi dëkk tëngéej defe naa ne mhm. amoon na kër goo xam ne ku fa dëkk rek dañuy jekki-jekki yëpp di lakk waaw loolu ndey saan man fekkewuma ko mais kaaw moo ma ko doon nettali yàlla na ko yàlla yërëm fa mu tëdd léegi nee bi mu ñëwee mu mu mu mu mu mu mu gis benn jëmm daal bu taxaw mel ni mooy lakk mooy mooy taal kër gi nee na bi mu bi mu commencé mu déggoon ne ayatul kursi moom mun na la musal ci yu mel noonu mu commencé jàng ayatul kursi mais buy jàng ayatul kursi affaire bi itam di jàng ayatul kursi bu ne allahu laa ilaha illa huwa kooku itam yëpp ne allahu laa ilaha ba mu yemee nag wala yauduhu hifzuhuma mu mu mu mu baamu ko nag ci xelam foofu nag rek waa ji lakk. nekk hmm. nekk nekk nekk doo. Hmm. affaire bi jaaxal ko nag mu dem si benn waaj bu baax koo xam ne nitu yàlla la demul sa si yonante bi mais kooku la dem wax ko kooku nekkoo ko kooku jinne la. mu ne ko ayatul kursi yi xejul ci benn jinne kon tey àdduna bi tey suñu doom yi nga xam ne ñooy génn guddi wala ñiy liggéey yu guddi wala ñiy dugg si oto yi wala yu demee noonu néew na nga nga ñu lay agressé. wala ñu lay def yu mel noonu fekk yaa ngi ci juróom-ñaari même bu dee sax benn ayatul kursi rawatina juróom-ñaari ayatul kursi rawatina nag booy tëdd guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na 41 maison droite gauche kanam penku si cité bi nga dëkk si koñ bi imaginer ko bu ko ñëpp doon def. sa sécurité day am dañuy assurer sécurité bi mais dafa mel ni yenn saa yi daal da dañuy dañuy gëlëm. dañuy gëlëm oustaz. xam nga. beneen njariñ bi ci ayatul kursi yi mooy dafa bokk ci askaaru sabaax yi mooy zikr yi nit ki def suba teel def boo xëyee ak yi muy def timis ak ngoon gi eh, benn fatiha ayatul kursi ñetti ixlaas ñetti falaq ñetti naasi moom tamit bu nit bu nit ñi lu neen ñi def sunu borom man na la ci aar ñii xànc ak ñii fas ak ñii reen ak ñëpp loolu boo ko xasee ba mu mën jaratul ngay ngay ngay xëy nga yàq sa xaalis yàq sa xaalis ci yeneen fatiha ci lu xaraam ba pare ci lu xaraam ci lu xaraam ci xaraam ndax li nga xam ne soo ko defee su sama mbokku jigéen ñi ñun moom ñun loolu defe naa ne ñun ñun lañ koy gën a wax te am na defe naa defe naa daaw sax wax nañ ko fi ne léegi li ñu gën a yéem mooy suñu njaboot gu ndaw gi ñoo gën a ñeme ñooñu moo tax léeg-léeg ñu am fa ndox mhm. dem ñu def leen fa xoolal euh, macha allah xale bu jigéen bi ñu reyoon daaw kii ko am na keneen itam bërki démboo njaay rek am na mbuur dégg naa histoire boobu liir naa ko ay waajuram di wax ne kooku da ko doon ñaanal mais fa mu mujjee mooy ñu fekk ñu rey ko def ko ci mbuus moo tax xale yi dañu ñeme seetlu gisaane yi ak niñ koy génnee ci tele yi ak ci rajo yi léegi euh, banaliser ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci li mu ci wax contre ma kenn euh, iñaanewu ma kenn lu mu am ak lu mu mën mais dafa nekk loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo ko defee 40 jours loo jaamu yàlla yàlla moom nanguwu ko parce que dafa am loo xam ne comme li ñu wax rek dafa nekk lu yàlla moom looy soxla xam yow sa ëllëg ci nàngam ak nàngam ñoo koy soo bëggee noppalu fi mu la wax ne jaar ma fa jaar ma fa waxu la nga def tawaakul mais defal tawakkul ah boo defee tawakkul def li nga war a def nag nga ne ko nag yàlla mbir maa ngi noonu ndax seetlu boobu ngay def wa man foofu xasbu xasbu encore itam képp ku wàkkilu si yàlla yàlla doy la nga gëm na itam qul lan yu si banaa banaa illaa maa kataballaahu lanaa huwa mawlaana ah moo tax benn nit mosoon na ma waxoon ne ma qul lan yu si banaa dama ko bëgg a mokkal ma ne ko programme mu dund la de waaw du lu ñuy tari question ñuy tari <laughs> da koy gëm comme mu ngi mel ni rek euh, yore woon bor yu bëri yi rek ba mel ni man ñu ne ko Euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mus a nekk dafa mus a ñëw fekk Seyna Abi Bakrin Siddiq radiallahu taala anhu góor gu ma bëgg la parce que euh, ni mu bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg su may liir ay mbiram ak digganteem ak Aïcha yaa Aïcha damay xam ne rek dafa bëgg yonent bi te muy dëgg léegi mu ñëw yonent bi fekk ko ci jàkk ji daal mu sëngéem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Ababakar lan moo xew lu tax sa sëngéem bii mu ne ko bëri ay yitte rek yaram bi diis te bor yi bëri yonent bi ne ko xaaral ma jox la loo xam ne soo ko waxee yàlla dina dindi diisaa yaram bi fay bor yi ci la ko joxe ñaan bu siiw boobu nga xam mm. ne daanaka nee naa primaire lañ koy jàng de mm. léeg-léeg sax ma ne leen jardin niveau jardin d'enfant la foofu lañ koy jàng allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal xuzni wa nauzu bika min al ajzi wal kasali wa nauzu bika min alabati dayni wa qahri rijali wa shamatati al aada mais oustaz ndax loolu nag répétition la wala baat yi ngay dund ndax min nauzu bika min al hammi wal xuzni xam nga xam nga alhammu ak ak xusn uh-huh. uh-huh. ak xam uh-huh. nit mooy fexe ba du ko dal waaw mooy nga nekk ci njub Ah. bañ a dugal sa bopp ci luy tax ngay am ay sens interdit bañ dugal sa bopp ci luy tax ngay am ay sens interdit defloo ma xam nga di ànd ak sa morom ba mu yàgg mooy lay nañ jaar ni moo gën a gàtt nga ni ko noonu nañ wér yi ne loolu wiiri wala yére bi yére bi yére bi day bañ wala wala sa téléphone bi sonné nga bañ a jël téléphone bi uh-huh, parce que xam nga ni kii am na lu ngeen waxante woon lu ngeen waxante te sottiwul yu mel noonu uh-huh. mooy mooy indi xëmm uh-huh. moo tax mu ne na ngeen moytu xëmm parce que dillul laylil ak ak xamu naar bor dafay indil nit bëccëg ngay am fooy moytu te bu guddee boo nee gor boo tëddee doo nelaw. doo nelaw wallaay boo dee gor boo dee gor. waaw boo dee gor boo am na ñoo xam ne bor dérangé wu leen. <laughs> te comme man nee naa waxuma sa mbiru àdduna mais nga xalaat ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu amee yërmande ñu tëral la nga nekk niiw mu dem ba war laa jiite mu ne jullee leen seen mbokk war la ginnaaw. oustaz la tax yonent bi def loolu loolu nit war na koo bàyyi xel ci dundam. xam nga doomu aadama mënul ñàkk bor ci dundam. waaw ah moom ci boppam. waaw. xam nga keroog bi muy génn àdduna. am na am na bor bu mu fi bàyyi. am na bor mais boru lan la woon. waaw dépense. njaboot dépense voilà très bien. njaboot. dem te te du bo dafa joxe. dafa joxe garantie sax waaw garantie la waaw. dafa joxe garantie sax nag maanaam pour wane ni. Euh, nit ki. dafa tayle tayle. tayle waaw waaw tayle mooy garantie. sa olof waaw mooy mooy jàppal ci lii jox ma lii ma dem. lijjanti ñoom jëlaat waaw waaw. donc kon euh, euh, ayatul kursi yi mën na la fegal lépp lu nga xamante ni bi lu la nara a lor la ayatul kursi yi mën na la ko fegal ñu war ko jàng mën ko jàngal suñu doom mën ko jàngal suñuy doom ñu mokkal ko sa doom nga mokkal ko mu mokkal ko yow nga mokkal ko soo xëyee léemoo ko sa wëkk sa sa njaboot bu guddee nga léemoo ko sa njaboot bu guddi jotee nga léemoo ko sa sa quartier quartier bi yëpp. nga lim wàll lépp parce que bu dee boo ko jàngee benn yoon. Uh-huh. bu dee boo ko jàngee benn yoon. Euh, quartier bi quarante kër ci côté bu nekk. Uh-huh. wala 41 kër. Uh-huh. ci côté bu nekk yàlla assuré na leen seen sécurité. bu dee man dama ko jàng. fa ma yem. yow nga jàng kenn fa ma yem kenn fa mu yem kooku jàng benn ah, mu def benn boucle kon kay loolu mën na nekk garantie. beneen bi ci des. mooy euh, day neexal xel. kiis bu ah, rëy ci nag kiis kiis bu rëy ci nag. ci naka. da ngay jàng ayatul kursi. allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uh-huh. ba ci eh, wala wala yuhituuna bi shay'in min ilmi illa bima saa wasi'a kursiyu samawati wal ardi wala yauduhu xifduhuma uh-huh. uh-huh. nga jël kaasu ndox teg ko nii. jàng wala yauduhu xifduhuma 27 27. 27 waaw 27. ëf ko ci ndox bi. eggale ayatul kursi bi jox bi jox nit ki mu naan ci saa saas wala mu nga defal ko ko ci buteelu kii yam mu naan ko te loolu waajur bu nekk mën na saa yu xëyee defal ko doomam oustaz gis nga euh, bokk na ci kii yam an nasru alal aada ak ci ay waaw gis nga ku bëgg sa noon du la musa ree saxol taxol ayatul kursi dañuy wax ne dañuy wax ne bu fekkee jàng ko bis bu ne mm-hmm. bis bu ne dalay dalay jafe weer woo dugg rek jàngal cinquante ayatul kursi yu dafa dafa jafewul sax ah. oustaz bu dee jàng ko bis bu nekk dafa la jafe parce que moom dafa nekk aaya boo xam ne comme li ma waxoon démb rek wala qad yassarna alqurana li zikri fahal min mudakkir moom boo mokkal ko xam nga si ce que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla daf ko wax ne ko wallahu yaasimuka min a annaas ah. wallahu yaasimuka min annaas mm-hmm. maay dox sa digganteeg ñi yées ñi lay fexeel mm-hmm. xam nga loolu garantie la maa la maa la assurer sa sécurité bu doon garde rapproché mu ne garde corps yi dem leen. amatu leen fi. ma ma ma assurer sa sécurité. mais moom mosul tëdd ci kaw lalam te jàngul fatiha. Uh-huh. kursiyu uh-huh. ixlaas falaqi ak naasi. tufli tufli uh-huh. raay ci yaramam. doogaa tëdd. pour ko njaboot gi te yàlla ne ko maa lay. maa lay maa lay garder mais loolu da koy def. pour te te oustaz foofu itam foofu xam nga tey. da ngay gis suñu doom yu bari ñu ne dañu am jinne dañu am seytaan ñuy daanu ak yooyu te ayatul kursi dara gënu ko ci foor ci dardul jinni wa sayaatin amul werante ah ndax ah, baqara ci boppam suratul baqara nga di ko waxuma sax nga di ko jàng mais yow enregistré ko rek teg ko ci kii bi mais jinne bu dëkkoon ci kër gi génn wala wala wala seytaane bu dëkkoon ci kër gi jarul ngay dem kenn di fa fay cent mille wala million di ko dee ko tegal rek kaset bi muy turne ci kër gi. te li ko may baqara mooy ayatul kursi bi ci biir ayatul kursi ndax mooy sangu. waaw sangu aaya bi ci des oustaz mooy taqiqu mataalibi dunya wal axira. ci lu wér. mooy mooy aajo yi nga xam ne. xayul qayyum ah xayul bi secret xayul qayyum ci biir ayatul kursi yi makaanatu xayul qayyum waxuma allahu bi allahu bi beneen affaire la mais boo jógee ci allahu bi. mooy tur bi nga xam ne moom macha allah taala da gis sax. ci univers bi léeg-léeg mu génn si <laughs> ndawal. léeg-léeg mu génn ci benn tomate léeg-léeg mu génn si benn jën léeg-léeg nga gis benn xale mu bind ci jée bi léeg-léeg mu am ñoo xam ne mu ngi bind ci seeni yaram macha allah taala allahu alam yàlla rek a xam. ndax yàlla ay mbiram lu doy waar dafa yéeme mais. Oustaz xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom. scientifique yi temps yële ça fait quelques années mais deux ou trois ans dañu dañu dañu dafa am comme feebar yi di dal nit ñi rek yi nga xam ne kenn xamul lan la da ngay dem fi bilan ñu ne la dara jotu la su ko defee nag nga dem nag ci maaman yi yàq sa xaalis yàq sa xaalis ba mu jeex te du dee bés bi ngay dem bu jotee nga dem. ndax fa isa ja ajuluha la yastaaxiru saa wala yastaqdimun te kuy dem war naa fexe ba dem ci ànd ak set xam nga niw am na fu muy toll même bu fekkee ne doon na takk téere mhm. jar na nga dagg téere yi sànni dëgg la ndax nit dina toll foo xam ne ci wattaayam nga nga kay sang nga fekk ay xaawa ay fasak yu ñuul ak yu rouge bordeaux comme sama couleur yére bi ñu takk takk takk takk ci yaram bi fekk yaa ngi ko tëral ni ci taable bi pour pour waaj ko su suñun jigéen waaw am téere bopp ak ay téere loolu téere sax ñu bëri démystifié nañ ko sax xale yi suñ njabootu tey gi xam nga koo ci takkal téere rek seen yére yi ñuy sol duñ ko takk mais ba tey am na yoo xam ne dañ koy gëmloo nit ki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Fatima boo demee ci sa tëdduwaay mooy bi mu ñëwee histoire ba sa boobu doon ko laaj jànq la ca xew yëpp mais dafa am benn secret boo xam ne temps yi tubaab yi ci seen bopp mhm. ñoom ñoo ko wax mhm. nee nañu nit ndax tabaraka lazi bi yadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir lu ci topp alladi xalaqa al mawta wal xayaata liyabluwakum dee moo jiitu te dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nelaw nelaw dee kon ndekete yow saa yoo nelawe danga dee te nit ki bu deewee fi muy tëdd day am ay germe yuy génn si yaramam mhm. di dugg ci ay acronyme xaw ma nu ko Serigne Cheikh tudde woon noonu te mu waxoon ci ak Ablaye Wade yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu kenn mënu ko pompe mënu koo rey poudre mënu koo rey amul benn produit boo xam ne mun na rey loolu nga xam ne mooy génn ci niiw di nekk ci foofu parce que niiw tey bu dee woon fii te amul dimbalu yàlla mm-hmm. suñ ko fi fàttee ñetti fan wala ñeenti fan lu muy dem mu commencé sax yi attaqué mu commencé nëb mm-hmm. léegi yow moom nag nga xool 30 ans 20 ans 50 ans yaa ngi tëdd ci sa lal mm-hmm. kon ndekete te guddi gu jot nga dee 24 heures wala nga dee 48 wala sax 12 heures de temps nga dee ko loolu nag saa yoo deewee yooyu mu ngi ruus foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xam ngeen du koy dindi mu ne saa yoo ñëwee war a tëdd salal fëggal darab bi ñett yoon boole ko turu yàlla boo mën moo xam bismillah allahuma bismika wadaatu jan bi jan bi bala nga koo def neel nii te sax loolu dafa bokk ci set ndax li nga xam ne lan lañ ko suba ba ngoon xamoon ndax dara jiitu na la fa te noonu ko waxee waaw bu ko defee nga fëgg soo fëggee ba pare xëccaat dina tax salal du xejam mhm. dina tax bu fekkee am na lu fa nëbbu woon mu feeñ mhm. bu fekkee am na lu doxoon ba ñëw raam dugg fa nga mën koo gis mhm. xëy na ci taax yi nii du am mais comme <laughs> l'islam ñëpp la jàngale dara mun na jiitu la foofu tëdd nga ñëw dë dugg rek xëcc sa darab rek ñëw dugg noonu ah baal ma sax ma reetaan nii dafa li ngay wax nii dafa am dafa ma dal ca seneen waaw damaa nekk ci sama néeg génne dem ci di waxtaan yi dellusiwaat ñëw fekk jaan utuma ci néeg bi ci suufu lal bi de sama benn rakk dinaa ko doon sama rakk Oustaz Yunus Thiès Seyda sama subhanallah ja moo benn noo ko gisee da nga ñëw rek non non dama dama dafa ñëw nekk dugg ci néeg bi fekk fi janax mu jàpp mu modd janax ji tëdd eh waay Samba man ma ñëw rek fëgguma defuma dara ma ñëw tëdd ci kaw njegenaay bi doon léegi nag ni ni geenu janax bi di dale ci kaw kayit yi ma teg foofu ma jóg taal lampe bi nag gis gis sawaay ba ma nee subhanallah. est-ce que moom sax deewul moom si boppam. léegi nee na moom dafa dañ ko affecté ci xale yi ñu mujjee affecté nee na muy dem di jàngale nee na moom guddi gu jot dina dégg lu ne fu dugg. ndekete fi mu dëkk dëkk na fa at ndekete ci paxu jaan lañ ko tegal lal gàttan bi nga xam ne moom lay tëdd waaye keroog ba mu gisee jaan <laughs> la bàyyi njàngale maak yëpp baa ngi koy nuyu di ko ziar sama rakk la <laughs> waaw may nuyu waale yaay mu papaam Oustaz Dia ak euh, ca Thiès Oustaz ma eggali foofu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu dara mënu koo rey hmm. lu dul fëgg bi ngay fëgg xoolal ni mu yombe nga të nga ñëw tëdd wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga hmm. xam ne moom lay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon Fatima sama turandoo ne ko moo gën àdduna ak li ci biiram mu boole ci nga boole ci ayatul kursi mhm. boole ci euh, falaqi li ixlaas euh, qul huwa allahu ahad qul auzu bi rabbil falaq ak qul auzu bi rabbil mhm. naasi tufli aar nga sécuriser nga sa kër sécuriser nga sa njaboot mhm. xale yu ndaw yi nga xam ne mënuñoo léemu seen bopp ñoo xam nga dem seen néeg tufli raay li nga ci mën a raay wala la mag ña doon lépp bu ñu demee tey li ngay dem toog leen jox leen seen portable di leen defal ay chanson mais nga defal leen sanso ayatul kursi mm-hmm. Mm-hmm. nga defal leen sanso macha allahu taala mm-hmm. euh, euh, nu mu tuddati euh, qul huwa allahu ahad te xale ataallamu taalimu fi sagar ka naqs bil xajar ka naqsi fil xajari su ko mokkalee mooy continuer ak moom ba ilaa yawmi diin kon oustaz daal defe naa njëriñu ayatul kursi tey nag dañ ne woon lancé na dinañ ubbi téléphone yi pour quelques personnes ñu ñu ñu kii leen mais xam naa ne comme euh, ayatul kursi bi moo ñu yóbbu ba nga xam ne jotuñu koo jàllale mais suba incha allahu taala ñu yàlla mayee li ma waxoon rek alfu lay la wala lay <laughs> la boobu rek lañ leen di def bu ñu yàlla mayee suba ñu fekkewaat ko incha allahu taala dinañ ubbi téléphone yi mhm. ba nga xam ne nit ñi parce que commencé woon nga junj ci xayul qayyum waaw da loolu dama leen koy may nii rek xam nga dese nañ 30 minutes mhm. léegi 30 minutes yooyu des sit bu ci laasana mu ne ubbi téléphone quelque mhm. yow na nga indil ñu itam ci xam nga allahu secret la xam nga yontu yàlla musaa dafa ne yàlla jox ma yàlla jox ko laa ilaha illallah mu ne ko mais lii moom la ñëpp yor mu ne ko cey musaab lii day boo xamoon ni mu mel yonent bi ne ko bàyyil ma tontul la ko ne ko yàlla joxuñu man ak ñi ma jiitu lu gën laa ilaha illallah mm-hmm. xam nga zikkar boobu rek ana wa nabiyuna qabli laa ilaha illa allah ah, waaw waxaat ko afdalu maa qultu ana wa nabiyuna qabli laa ilaha illa allah joxuñu ma lu gën man ak yonant yi ma jiitu woon lu gën laa ilaha illa allah laaji aja gis nga laa ilaha illa allah mooy lépp même tariqa yi ñuy utilise nii. Uh-huh. tariqa yi ñu utiliser nii. Uh-huh. base bi laa ilaha illallah la uh-huh. base bi la ilaha illallah xam nga Allah. ci ñi nga xam ne ñooy def ilmul xisaab. juróom-benn fukk ak juróom-benn la 66. 66 laa ilaha boo ko boolee muy 166. ndeysaan. 166. boo ko defee ñetti yoon. muy quatre cent quatre vingt dix huit. allahu akbar. yu bëree nga ca daal yu bëree ngi ci. ngi ci moo tax euh, laa ilaha illallah soo ko dee zikkar soo dee jël la ilaha illallah surtout nga di ko booleeg Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo ko booleeg Muhammadu rasulullahi ban aadat la lay jox. yii yii yii Seyda. dugg fu garaaw waay. fu garaaw. <laughs> nga fu garaaw waay laa ilaha illallah muhammadu rasulullah soo jëlee seeni lettre rek vingt quatre la uh-huh. muy vingt quatre heures yi uh-huh. ñu bindal la tuyaa bay koy jaamu yàlla vingt quatre heures sur vingt quatre nga xam ne daggoo benn yoon jaamu yàlla bi laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga di ko zikkar nag di ko def mu nekk sa zikkar surtout ci weeru koor bi ni am da nga toog rek nga xam ne da ngay am jot waaw am nga jot mm-hmm. laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mm-hmm. laa ilaha illa allah da ngay toog ba mu yàgg yow ci sa bopp mm-hmm. boo génnee ci biti nit ñi ñoo lay laaj ci loo ne ci loo ne allahu akbar ci loo ne parce que dañuy gis ci yow leer gu la dugg si gu nga xam ne du bokk ak ay leeru diwu yii de leer leer leeru naturel beneen affaire la beneen la que ah, ah. tur yàlla yi yoo xam ne dafa am leer laa ilaaha illallaah ak ak ak dal gi ngay dal dara du la beneen soo gaawoon mer su fekkoon da nga nekkoon nit ko xamante ni danga nga gaaw a mer mm. ngay def laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah mm-hmm. da ngay dem ba yaay gën a am dal ku mu mën doon ala bi dikra tatma innul qulub tatma innul qulub loo tax moo tax tabarkalla boo ko mënee dee ko dee ko def beneen bi ci des mooy lu ñoo tudde xayyul qayuum allahu la ilaha illa wal xayyul qayuum ngay jàng yaa xayyu yaa qayuum xam nga ñetti yoon la ñëw ci alquran xayyul mm-hmm. qayuum waaw xayyul qayuum mm-hmm. benn bi mi ngi ci suuratu baqara comme ni ñu wax nii mm-hmm. ayatul kursi bi benn bi ngi ci suuratu ali imran benn bi nga fële surat 20 aya suuratu taaha Euh, ñetti yoon yooyu mu ñëw uh-huh. euh, jarul bari teewalal sa yéene rek uh-huh. teewalal sa yéene uh-huh. sa diggante parce que jàmm yàlla yëpp ci yéene la nekk Seyda gis nga ñun li tax nga nekk di ñaan te fekk du du gaaw a nangu parce que yéene bi ak euh, concentration bi moo des xam nga maa ngi lay wax sànq soxna si démb rek li nga waxoon. waaw udullaha wa antu. muqinuuna bil ijaaba. ijaabati xam nga tey jii boo dee boo dee ñaan sa borom. waaw te wóoluwoo ko. te wóolu woo ko. waaw amoo ah, certitude ñi dañuy wax rek. waaw amoo certitude bu loolu moom lu mu soxla mu faju fekk yow xamuñu ne yow sa yitte du yow lii yitteem. xam nga nit ku nekk ak dafa bokk ak moom yitteem. waaw tey jii ñëpp ñooy dem marché. waaw dafa am koo xamante ni bu demee marché. ci borom jën bi lay jubal am koo xam day jubal ci borom ndawal. waaw am koo xam day jubal ci borom keccax. waaw kenn ku ci nekk ak sa yitte ci marché bi. marché bi mooy sunu borom. kenn ku nekk leen la yitteel am na ku nga xamante ne bi demul ca marché ba pour jëndi dara mais day dem pour daje fa ak benn jaamu yàlla dimbali ko dimbali ko léegi nag boo nekkee dem na ca marché ba ñëw te indiwul dara c'est parce comprendre loo lan moo ko animé woon jaamu yàlla yëpp dafa tegu ci ay yéene jaamu yàlla ci yéene la tegu Seyda mhm. gis nga boo dee jàngu xam nga jàngu waaw li ñuy wax jàngu waa xam naa jàngu mooy raxas génn ci biti ba ñëw sa yaram bi pënd ngay pënd nga raxas tànk yi kese ah, ak raxas loxo yi nii xam nga taawu xale léeg-léeg ñu ne demal sangu ji <laughs> nga dem raxas say loxo ak ak kii ñëw toog ne sangu naa fekk xoolal kan ndoxu sangoo nga fa et puis bi ngay daj pour jàngu sangoon na la léegi nag gis nga jàngu boobu ngay def noonu mhm. xam nga ba kii jàngu day ñëw sëlmu raxas ah, loxoom raxas tànkam mhm. tooyal boppam tuuti mhm. et pourtant loolu muy def noonu kii jàpp loolu lay def mais li tax kiy jàngu ba paree du man dem julli ji kiy jàpp su paree man dem julli ji parce que anniya mooy seen différence yéene ba intention bi la animé ba nga ñëw raxas sa loxo ak sëlmu raxas sa bopp raxas say tànk loolu yéene boobule mooy tax ba pare man julli kay bu ñëwee yéene bi ko tax xaaral ma tooyal sama yaram bi nii rek lay wax mais moo tax su paree du mën julli moo tax jaamu yàlla yëpp ci yéene la nekk boo bëggee ñaan sa borom da ngay teewlu sa borom uh-huh, uh-huh. bàyyi ko xel li ngay def jarul muy bari lim yi nii benn bu sell Serigne Cheikh laa dégg mu ne ba ma xamee ni jaamu yàlla du jeex laay def lu ma mën ma def lu ma mënul ma bàyyi <laughs> wax na dëgg de wax ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo demee tey si jàkkaam ji ci ustuwaanaat yi hmm. am na benn ustuwaana bu ñuy wax ustuwaanatu kenn ci soxnaam yi hmm. fekk na ko fa mu takk buum ci baatam takk ko ci poto bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laajte lii lan la xaw ma yi xaw ma Zeynab kenn si ñoom daal du a ay Aïcha mu ne mu ne ah dafay bañ su gëmmantoo pour mu takk buum bi pour mu yeeku yonent bi ne ko xaaral ma jox la loo xam ne benn yoon dañ nga koy wax mu wuutu li nga fi jàng yëpp man benn yoon bi ma ko def ëpp na multi multi milliers fois euh, milliers fois li ngay def nii te te maa la ëpp tuyaaba xam nga yooyu te ñu ngi fi. te te te jafewul subhanallah bihamdihi waaw adada nafsihi waaw adada nafsihi wari أعوذ بالله سبحان ربي الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته nga am lu ëpp ki nga xam ne muy doon zikkar yore ku su junneem te loolu benn yoon nga koy wax rek te benn yoon nga koy wax nga am mu nekk miisaanu kële nga xam ne def nga lan la kooku wax mhm. subhanallahi wa bihamdihi mhm. subhaanallahi wa bihamdihi ndeysaan moom la yàlla wax yooyu ne wa min fa ida ida jaa nasrullahi walfathu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diina afwaajan fa sabbih bihamdi rabbika loolu mooy tolloog li ma la wax sànq de la mooy laa ilaha illa allah boobu allahu akbar boo xisaabee lii xisaab laa ilaha illa allah mu tolloo teg teg wastaxfiruhu lu tax innahu kaana tawaaban nga set wecc ah, weeru koor ñëw mu ne la dugg si yéeneel ma setal la wecc benn bàkkaar moo tax damay faral di wax ne àjjana man defe naa ne jafewul dugg safara moo jafe parce que boo gisee opportunité yi nga xam ne yëpp yàlla borom bi subhanahu wa jox na la ko ci dund soo gëstoo tuuti xam tuuti di nga xam ne pour nit ki dem àjjana lu yomba yomba la mais pour nit ki dem safara lu jafe jafe jafe jafe la dafa am benn benn mbokk mu ni. dafa am ñaar yoo xamante ne bii jafewul da nga da nga leen dul xam. dafa ne dugg aljanna jafewul. nit ki moo ko dul xam. gis yàlla jafewul nit ki moo ko dul xam waxuma gis yàlla. ay yàlla waaw waaw waaw waaw mais gis yàlla maanaam lii nga xam ne lii nag vraiment du kenn yàlla la. waaw booy gis ko. waaw ndax ndax ndax euh, xam nga oustaz lu mel ni weeru koor bii nii. su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne tuftaxu xoola tuftaxu mm. abwaabu sama abwaabu janna abwaabu niiraan waaw wa tuxalu shayatin waaw nañu buntu àdduna tijji tijji ngalañ mm. que waaw tuftaxu te boobu yërmande yi la ci jublu de yërmande yi nga xam ne képp ku ci génn àdduna directement da ngay ñëw rek dugg ñeneen ñi nga xam ne ñu nga fa woon doon xaar ñoom tamit ci seen baax ñu manqué woon ay point waaye bàyyi nañu ñu leen fi ñaanal ñu yóbbaale ñooñu buñ leen rombee xëccaale leen ñu dugg ci hmm. biir mu ne wa tuuru làqu ñu tëj ràpp hmm. côté safara kon fi mu nekk amul lu nit di lu nit moo tax jaamu yàlla safara safara bu doon dem na dem na trêve dem na dem na dem na dem na <laughs> fu kenn xamul yàlla fa yàgg mu ne nag ki nga xam ne nag moo moom moo ne woon yàlla bu may dem safara ëllëg du man kese la uxwi yannahum ajmain ñoom ñëpp dinaa ànd ak ñoom dugg safara yàlla ne ko waxoo dëgg am na ñoo xam ne mënoo leen fëkk parce que la la taxoon nga ma dàq la ñoom loolu dunduñu ko muy mm-hmm. alkibriya allahu akbar parce que oustaz kibriya du dara budul complexe man nee naa kibriya rëy complexe bu làqu la parce que yow lan lan ngay rëy kan nga gën koo xam ne bu neexoon yàlla fii ak trois minutes te gis nga nit lu ko metti lu nekk xoolal wuy sama ndey ci suuf la jëm mm-hmm. Mm-hmm. gisoo kenn ku dara di metti muy tëb jëm ci kaw mais léegi léegi léegi boo amoon tey lu ne la fi kirtim mm-hmm. wala nga dugg oto mu accident wala dara ñu ñu tërale ci suuf si deewa koo de kenn suuleegu la kon dellu nga fa nga jóge woon wa fiihaa nu'iidukum wa min ka wa min ha nuxrijukum taaratan uxra parce que léeg-léeg ñu yëkkatiwaat la sauvé la nga jóg nga jógaat mën a taxaw mais fi mu ne këpp ne la tël liis jëm suuf rek liis jëm suuf boo too tëddee ba guddi sa bëñ metti wala sa biir metti wala dara li ngay def rek mm. da ngay beppeeku jëm suuf mm. nga jékki-jékki yooyu yëpp dugg la kon kooku war naa xool gis ne digganteem ak boromam subhanahu wa taala kële iblis la tax mu ne woon yàlla dinaa ànd ak ñoom ñëpp dem safara yow doo ci bokk parce que moom li ko gaar muy bakken bii rek yow gaaratu la parce que yow démystifier nga ko nit ki daf koy démystifier ba nga xam ne xam nga am na ñaan bu ñu wax wala wala wala tukuni dunia akbar hammina hammina man début bi ma ko doon ñaan dama naa may lii boo koy ñaan yàlla du la may ay fortune nag ay yooyu mais euh, tolluwaay la oustaz loolu tolluwaay la ndeket xam nga di ñaan di ñaan di ñaan sa boroom uh-huh. mooy nit dafa am lu ko dafa am lu gën ci moom uh-huh. Uh-huh. nit dafa am lu gën ci moom cest à bu àdduna feesee ci sa xol yàlla du ci xaj dëgg la waxul ne bu ma am bu ma am àdduna de dafa ne bu ma jiital waaw waaw waaw bu mu la jiital ak baraam mina bu ma jiital waaw bu ma jiital <laughs> xam nga bu la àdduna jiitalee moo lay dugal si ci lu nekk tooxi doona bu nekk nga dugg si def loo mën def loo mënul yootu loo loo amul nga defe ne nit moo la ko xañ mm-hmm. ba tax ngay dugg ci naka sudul noonu wala ngay suufeel sa bopp mm-hmm. wala ngay ñàkkal sa bopp fayda wala ngay woccu ba pare di ko lekkaat loolu yëpp ngir rek poñetu àdduna bi nga xam ne àdduna lay jiital àdduna jiital na la yàlla nañ ci yàlla musal kon oustaz defe naa ne gis nga moo tax Seyda uh-huh. gis nga mais xayul qayyum boobu nag moom euh, euh, xam nga diggante fajar suñ julee ñaar rakka al fajar yi di xaar tey suñu waa ji dégg na ma de nodd bi dégg naa ko bu diibal ko ma daw jëli sama buteelu ndox naan sama benn vitamine <laughs> ginnaaw bu ma xëddee ba pare man damay xëdd de <laughs> oustaz xam nga dañu ne euh, yonent bi dafa ne dee leen xëdd indali suxuuri baraka man ay ah, xadis boobu moom ñoom Anna Ndiaye bu ñu yeboo rek ñëw jël si li nga xam ne ku ne wér ku ne wér yow man daal man daal man wér naag wérul yëpp man daal am na xadis yoo xam ne dama ne su itam man sama na ma <laughs> man daal xëdd leen ndax xëdd am na barke xëdd de bu amulee barke dina tax moom doo faible moom wax dëgg yàlla ci wér waaw ci lu wér nit ñi nag am na ci ñoo xam ne nelaw kese kese bëggi nelaw kese moo tax duñu xëdd ak tàyyel njabootu tey gi tàyyel wala nekk ci sa téléphone au lieu que nga naafile ji au lieu que nga nga def nga nekk ci téléphone bi di xool ay cas nekk dugg si TikTok lañ koy wax xaw ma dugg euh, Instagram jóge fa dugg si kii nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci ba 4 heures et demi fi ñuy nodde yow nelaw da lay su ko defee foofu nag boobu nag heure oh, waaw bu baax bi. mooy heure bu baax bi te foofu nag seytaane gis nga boo jàngee ayatul kursi seytaane du saw ci sa nopp gis nga ñetti waxtu yii kenn waru koo sàggane rawatina weeru koor waaw ñetti waxtu yii ñetti waxtu uh-huh. kenn waru koo sàggane rawatina ci weeru koor uh-huh. su ma waxee sàggane nag mooy warul ñëw ba romb te defoo ci dara lu la amal njariñ parce que waxtu la yu nga xam ne sunu borom day accepter demande bu mu mën doon bu mën bi ci njëkk Seyda mooy waxtu bi nga wax léegi nii waxtu bi ñuy xëdd foofu la sunu borom di wax ne kuy ñaan kuy laaj laaj kuy baalu kuy baalu solu su lay bi rek bu commencé wal mustas wal mustaghfirina wal mustaghfirin diggante julli ñaari raka yooyu ñu naan salaatu xayrun mina nawm ak fi ñuy jullee suba oustaz diggante boobu réglé na lu bëri ci ku ko xam. gis nga moo tax bari na lu lay jafe. lu lay jafe. fekk nelaw heure boobu. fekk ah, heure boobu mën na la rëcc. waaw bu la rëccee. mën nga ko ñàkk dem moo tax heure boobu heure ñaan la ku am sa soxla bul tayyi. oustaz xam nga xam nga yónnent bi sallallahu alayhi wa sallama li ñu wax li mu wax ne xadd utitu jawaami al mhm. yàlla dafa tënk lépp jox ma. Mhm. xoolal li mu wax foofu rek ne rakaata fajri ñu ne am mu ne xayrun mina dunya wa ma fiha moo gën àdduna tey multimilliardaire bi gën a riche ci monde bi ñaar raka al fajar moo ko gën être président de la république ñaar raka al fajar être DG ñaar raka al fajar nekk jabaru nangam première dame rakaata fajar nekk ministre rakaata fajar nekk ku ñëpp di séentu ci xam-xam taar ak lépp lu mu mënti doon rakaata fajiri ma ko gën xam nga tuyaaba boo doon calculer di calculer tuyaaba yi ñaari rakka fajar mhm. benn waay boo xam ne dañ ko wax ne ko àdduna bi yëpp yaa ko moom mhm. les mhm. moom li fi nekk ci alal ak tabax ak oto lépp yaa ko moom lépp lépp dina wërngal képp yaa ko moom nga jël ko ne yàlla lii saraxe naa ko yàlla ni nangu naa ko nangu naa ko boobu tuyaaba boobu. mooy tolloog ñaar rakka. a rakka fajar kon koy arrangé dañu ñun ñu amul milliards yi ñuy joxe amuñu millions yi ñuy joxe. fa laay ñëwee ci deuxième ci ci deuxième waxtu bu baax bi. Mhm. xam nga wax na bële mooy diggante xayrul mi na mi ak. Euh, mooy fajar gi. Mhm. njël njël gi njël gi waaw. beneen bi. Mhm. mooy diggante bi ñu jullee suba ba jant bi di génn. ba ba def ñaar rakka suba ba ngay def suruq <coughs> tax nelaw ko lu danger la la. diggante boobu mën nga fa am aji màkka ak umra bu nangu ak umra bi fan yii ni billet bi seere ba nga xam ne ñun ñi ñu jaayoon ñëpp fi mu nekk dañ leen di woowaat ne leen dolliwaat leen nga xamante ni kii amoo lu la amoo yóbbu nga umra ji waaw waaw diggante boobu mën nga fa am tuyaa bay aji màkka ak umra si naka oustaz julli suba rek toog di tudd yàlla yaa xam loo xam yàlla yaa xam loo loo ko tudd rek baax na nga xam yaa xam na ngay wax laa ilaaha illallaah yaa xam astaghfirullah yaa xam looy wax mais nga toog rek di ko wax di ko wax di ko wax ba jant bi génn waa diggante fajar bi am na am na benn kii de nuñ koy waxeeti astaghis xaw ma nu muy duggee ti noonu diggante ñaar rakka fajar yi am na benn zikkar bu ndaw boo xam ne yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghis bi rahmatika nastaghis hmm. nga nga nga noonu noonu kii bi rek comme comme yaa ne woon fële iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin léegi kon dugalal yaa xayu yaa qayyum bi rahmatika astaxiisu nas nastaxiisu wala rek waaw astaxiisu yaa xam hmm. xoolal loolu ay yiwam ñetti baat yii rek euh, yal nañu yàlla dolli sutura te te loolu mu ngi ci biir ba tey léegi rek ci dëxiñu waxtu boobu waaw nga julli suba toog di wax say wax yëf yàlla bu dee bi kay am na sens day def daal moom day door léegi bu nekkee boo fa nekkee di zikkar di zikkar ba jant bi génn. net fàng nga nga jóg julli ñaari. ñaari rakka suruq dañ lay bindal. Uh-huh. tuyaabay ku umra. Uh-huh. bu mat sëkk. te yàlla nangu ko bindal la bu mat sëkk te yàlla nangu ko. te mun nga dagg billet sax dem ba màkk nekk nag bés bu nekk nga am ci kon mun nga dem umra waaye oustaz nag bàyyi nit ñi di dagg billet aussi di dem umra <laughs> eh, boo mënee loolu kay déedéet Seyda boo mënee loolu ndax boo ko waxee damay ragal compagnie ñoom euh, Adja Mari Mari yaa Mari Gueye bu hmm. waakap yooyu damay bañ waakap yooyu ñoom Maxtaar Diallo euh, ay sa jamanke ak soxnaam ak ñoom Ndey Faatu jong maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaar oustaz beneen des na troisième bu baax am na benn waay boo xam ne mhm. moom fi mu toll nii mhm. amagul billet màkk te bëgg na dem kon na jàpp boo xam ak benn waay boo xam ne mhm. am na billet màkk mais doyalul tuyaaba mu def bi def boole bële muy ñaar kële amul bële mu def bi te loolu dafa yomb de dañ koy ci ñi bëgg a dem màkk te amaguñu billet boole ci ñi sol brodé yu noir yi am yu rouge yi. sa sol garam boobu yu kii yi tamit. waaw waaw ñun yàlla nañ ko yàlla boole. mooy benn kii bi beneen bi ci des. Mhm. beneen waxtu bi des. Mhm. mooy waxtu boobu nga xamante ni bi yaa ngi toog. Mhm. di seetaan sa théâtre te waxtu dog bii dëgg ma si nga toog toog di seetaan sa théâtre di xaqataay. allahu akbar yaa ngi perte loo xamante ni bii xamuloo sax nu mu toll. foofu ko boobu oustaz bi nekk fële RFM di wax allahuma gis nga foofu mooy saatal ijaaba waaw loo fa ñaan moom moom day nangu bal la mais nañ ko tajriba léegi dëgg laa ak du dëgg essayé leen ko rek ngeen ñaan problème boobu ba weer wi ba weeru koor bi jeex su fekkee ne moo gën dafa benn jigéen mu ñëw mm-hmm. wax ma ni ma oustaz mm-hmm. man de aw ma njaboot te dama bëgg yàlla may ma njaboot ma ne ko weeru koor la ñu nekk defal li ma la wax ni bërki démb maa ngi koy wax yi nekk fii ci kër gi ñu dem ay seet lañu ay nouveau marié lañu ma ne leen seeti leen oustaz Mor ñu ne Seyda ñaanal ñu ñu am ay tur tànk ma ne leen seeti leen oustaz mu jox leen secret yi incha allah bu déwénee ngeen boot oustaz Mor wala ngeen boot Seyda Fatou dama ko wax ne ko weeru koor la ñu nekk mhm. booy dog mhm. bul bouger sa buntu kër bu waxtu dog bi di ñëw mhm. tegal sa kaasu léegi kañ lay doon avant ngay seex tàndarma bi wala boo seexee tàndarma bi ba pare ni jant baa ngi soo te te jant baa ngi soo ngay waaj a dog uh-huh. diggante su gàtt soosu uh-huh. moom mooy santal ijaaba bi uh-huh. wallaahi jël nga tàndarma bi yaa xaaliqu amoo doom yaa xaaliqu yaa baariwu yaa musawiru yaa xaaliqu yaa baariwu yaa musawiru xaaral ma bind ko ndax xam naa damay génn fii ñu wooma waaye man ku ma ko jox kii la yaa xaaliqu cinq cent mille yaa xaaliqu xaaral ma bind ko yaa xaaliqu yaa baariwu yaa musawiru yaa xaaliqu yaa baari u yaa baari u yaa musawiru yaa musawiru na un million léegi nag yaa xaaliqu yaa baaru yaa musawiru nga wax li nga bëgg yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma doom ju may tiitaroo te bañ ma tiital waaw allahu akbar doom ju may tiitaroo te mu bañ maa tiital ndax doom innama amwaalukum wa awlaadukum fitna <laughs> laay doom léeg-léeg mu ñëw indi la fitna bu méttee métti métti. daal di jël sa ma lekk jël sa ndox daal di naan dog sa koor daal dem julli ji timis ci saa si. waaw kon jox naa ko sama doom yu jigéen yëpp macha allahu taala ñi nga xam ne ñoo gën ci man. xam nga nag il faut ñu comprendre leneen euh, doomu Adja Sala Diop démb rek maa ngi koy wax. yàlla ma ko yàlla yàlla mayal di wallaay ndeysaan. dafa am ñoo xamante ni Seyda. Mhm. sunu boroom boolewu leen ci ñi am. Mhm. waaye jaalu. man yashaau aqiman waaw sayyidatuna Aïcha sayyidatuna Aïcha ku ko gën ndeysaan yaa déggeen loolu la ma doon wax su ma waxee mu ne ma ah Seyda man de aw ma problème ma ne ma la mu ne ma lu Aïcha amul man bu ma ko yàlla xañee damay bég yàlla ko yàlla yërëm fa gis nga gis nga jàllo sama benn sama benn mag yàlla na ko yàlla yërëm amin amin dem na ci amul amin doon wax ne oustaz man de amuma mhm. waaye ñàkkuma mhm. duñu duñu ñàkk amuma uh-huh. waaye ñàkkuma uh-huh. parce que nangu naa ko dëgg la dëgg la xam nga benn mbokk dafa wax ne bu ma ñaanee yàlla mu may ma uh-huh. damay am kersa su ma ko ñaanee mayuma damay bëgg ko loolu la tooy tolluwaay la mu ne ndax li ma ko ñaan mu may ma ko maa ko demandé lim ma xañ moo ma ko yéene te xam na ni moo gën ci man wallahi lu mu def moo gën ma faalal jalilu fa huwa jamil wallahi moo tax moo tax yàlla ñett la bind am na ko daf koy may am na koo xam du ko may am na koo xam da koy booleel li mu may ñële waaw yaxubbu li ma ni saw inaasan koo xam ne jigéen kese ngay am am su du ko am na ñoo xam ne góor kese la ñuy am am na ñoo xam ne daf leen di may góor ak jigéen waaye jàll ma ni saa ku ko neex nag mu def la nga nekk koo xam ne yow doo jur. doo doo doo doo doo nekk yaay mais di nga jur. xam nga parce que di nga am ay doom yoo xam ne. dama lay jox benn misaal. waaw. Euh, réew mi ñuy yeewoo nii. Serigne Ahmad Saxiir Lo bu kokki ku ko ëpp njaboot. kenn kenn ëpp ko ndax ñu ñu génn ca daara ji yëpp xëy ji daara kokki yëpp. xam nga kenn ëpp ko njaboot. déedéet et pourtant sunu borom jaarale ko foofu. amul. amul mais kenn bu ko njaboot man mi njabootam laa yow njabootam nga keneen njabootam la te ko di ko di ana lu mu soxla suñu borom dana ko defal parce que doom yi mu jur ñoo bari ay millions yi millions yi njaboot lu jur bu ma tuddee loolu nag dama ko tudd pour que ki yàlla mayul xam mu calculer ni yàlla da ko boole ci ñooñu ci góor ñi si suuf ci ñu ci boole ci mboole ko ci ñooñu te Oustaz loolu yàq na sëy yu bari tas na dëkk bi tas na dëkk bi waaw xam naa dinañ ci Euh, balaa koor gee jeex bu ñu yàlla dimbalee dinañ ci euh, dinañ ci waxtaan am ñoo xam ne itam ñu ngi wàcc xam nga macha allah taala programme yaa ngi ñëw. benn minute euh, waaw benn minute waaw léegi mu mel ni waa ndeysaan macha allah taala ñoom waa retrouvaille Grand Yoff mhm. ñoom la le 9 incha allah samedi bi di ñëw. Mhm. la ñu def seen conférence foofu ci terrain lew na bi foofu man mhm. maa leen koy defal. Ouest Foire yitam ñoom sama euh, tata sama mag ndax xam naa na bu sekk moom tata lay wax mais man mun naa wax mag ndax raison yu bëri. Mm-hmm. ak euh, imam Cheikh ay dara ñoom tamit seen conférence Mouhamadou Lamine Darame ak euh, def naa am na keneen ñoom ñoo koy defal waxtaan foofu ci ci Ouest Foire oustaz waaye yow mm-hmm. tamit xam naa ne. yaa ngi waat waaw Euh, maa ngi fële ci euh, unité 6 bu Kër Massar. Uh-huh. incha allah ci donc euh, sama mbokk bële oustaz Mansour Cissé. waaw waaw oustaz Mansour Cissé journaliste. Uh-huh. waaw waaw waaw ndeysaan mi xaritu xaritu Aïssa Gueye la. ndeysaan <laughs> moom la ñuy defal ci. yaa uh-huh. Seyda. ni mu Seyda Khadija. waaw ni mu nekkee misaal. ci jigéen ñi nga xamante ni bi ñëw yegg seen biir néegu sëy moom la ñu fay waxtaane incha allahu taala euh, sama mbokk docteur ab Gaye incha allah moom tamit Ablaye Gaye Ablaye bu bu weer bu seentu weer waaw mais yow li ngay wax yow man ma defe ne ku baax ngay wax <laughs> sa càmmiñ la <laughs> ne ko ne ko Seyda Faat man li may wax Oustaz Ablaye Gaye maa ngi di foog ne benn kilifa bu mag ngay wax ndekete seentu weer daal waaw wax ko loolu rek xam naa ne man moom dina ma yekkati loo xam ne du ma ko nettali kenn. le 10 avril incha allah day def benn conférence bu mag ci macha allah. Ah, ah, dafay def ah, conférence bu mag ah su ma amuloon malheureusement nag le 10 boobu waa AFDES. man tamit le 10 maa sama mbootaayu bopp bi nga xam ne depuis ñu am 20 ans ba léegi ñu ngi ci ba tey ñu bëri gis nañu seen sët. Euh, ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy conf ñooy def waxtaan causerie sax lañ ko def parce que dañ koy def rek kër présidente bi kër Adja ay Aïcha waa AFDES yëpp ngeen préparé pour le 10 jouru natt bi la mais ñu defaale ci waxtaan fàttalikunte fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin mm-hmm. euh, dimanche itam foofu la ñuy nekk mais samedi moom maa ngi Grand Yoff kon oustaz Assane tey euh, xam naa coonoy démb bi moo ko jàpp laasana dugalal nga ma sama écriture tey ki ma solal ndax Xalifa Mbergane moom Euh, yi ma jox moom mais kii dafa fekkoon moom mu jiitu muy Sabina euh, so sik nee na ma tur bi doo ko mën Mouhamed nee na ma mama man li ma jaaxal mooy arab dafa am che te yow munoo koo wax <laughs> yow bu fekkoon ne arab amu ko sax nga de kii de lu tax ngay wax Sabina. Mm. te cha te yéen am ngeen ko. Mm. kon waaw mu ne ma ne ko cha Chine nag moom am nañ ko moom. xam mm. naa am na lettre yu ñu amul mais bii am nañ ko. oustaz euh, euh, salaatu tasbih bi moom. mu koy waaj mais est ce que yow bii mun munoo ko woon denc ba salaatu tasbih wala dafa am beneen boobu. Euh, am na benn jigéen bu baax nee na ma moo may sañseel ci kaw ba ci suuf ci salaatu tasbih. salaatu tasbih yàlla ko yàlla fay yiw koy ñaanal yàlla yàlla bañ cat dugg ci macha allah waaye Seyda di wax ñu ngi woo suñu mbokk yi ci seen Assainies Kër Massar yëpp mhm. ci suñu bés boobu nga xamante ni bi nun waa daara ji ñoo ko organisé euh, muy dimanche la la le bi waaw incha allah ñu war a waxtaane Seydatuna Khadija ah boobu nag keroog moom bi nga xamante ni ni mu nekkee yaay ci sëy ci jigéen ci biir këram ci biir këram ah, dëgg la moo tax ku ci bëgg a roy waay mhm. euh, ñu ngi lay ñaan nga fekke ko incha allah ca Parcelles Assainies unité 10 Kër Massar incha allah di woo ñëpp nag ci salaatu tasbih bi incha allah. di nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp nag di madame madame Guissé ak Am ak Monti ñooñu nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci réalisation defe naa sa vie Diouf it léeg-léeg mu romb fa rek ne moom sax bokku si waaw mais nag moom xam nga moom. il faut que rek ma ko ci ndax dafa bëgg Cheikh Mamour Insa Diop moo tax ma koy wax mais ñuy nuyu rek may nuyu yaa Marie Guèye sama sœur boobu nga xam ne su ma gëstoo rek sama xol sedd di nuyu itam madame. Camara Ndey Mbay mais di nuyu tamit sama doom Sala euh, euh, Maguette ci xeetu teraanga yu baax yi Ana Ndiaye maa ngi nuyu famille bi yëpp jël ko jox ko si madame Badiane euh, Aminta mu joxal ma ko Yaasin ak Ndey Kan Cees Ndey Kuna sama rakk ju baax jooju macha allahu taala ak Awa Dieng madame Fallou di vraiment kontaan nañu temps bi jeex na. te xam naa ne laasana moom fan yi sa daf ma xaw a rus. ne kon ba tey kii na ma. kon daal ñuy wax ne Ramata maa ngi lay nuyu yaayu Mouhamadul Mansour Abi Sow. wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa taala ba suba ci même heure incha allahu taala. يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا